la bara la ne moom mi nga xam ne mooy leerug sëñ ma euh, tey gis nañ nga indi li nga xam ne rek mooy euh, bernde yi nga xam ne mooy jëm ci euh, sëñ Mamour Anta Sali fii nga xam ne tey mooy ci këram gi nga xam ne fi lañ ko fekk ci résidence bi. waaw jërëjëf jërëjëf ñu leen di sant bu baax di leen ndokkeel ci bis bi nga xam ne benn la ci bisi sëñ Touba yi ndax borom bis bi léppam boppam ne damaa summiku sama baatin ci moom kon bis bi damay la ab la sëñ mun Mountakha waxoon rek 2017 ba mu defee journée xasida daarul minan ci waxtaanam wa mu wax ne dafa am lu yàgg ne ci sama xol ma yàgg koo bëgg mooy bëgg a njukkal sëñ Massamba te xam naa ne ku yaakaar sëñ Touba amee na ko njukkal ngir taxawaay bi mu amoon fi sëñ Touba kaddu yi sëñ Muntaxa yooyu moom laay àbb rek barkeelu ci nun ñëpp ñi fi daje tey ñëpp sëñ ma Massamba moom murit yëpp am nañ cër ci moom ndax sëñ Touba da koo boole ñëpp liggéeyloo ko ci lu ñëpp di jariñoo sëñ Moussa Abdou wax na ne sëriñ Chouaïbou bu Mbàkkee ko nettali ne li mu daa tukki ci réew mi daana tukki tukki bu yàgg waaye dëkk bu mbasa dem dana fekk taalibe sëñ Masamba te léeg mu dem foo xam ne sax du ko bokk kenn noonu la ko waxee loolu nag li muy tekki mooy mission yi ko sëñ Touba daan loo di yaatal di ko yaatal loo yoon wi moo waral loolu murid moom amul lu dul ndigal ak kilifaam fu kilifaam nekk rek bëgge foofa ñëpp fekk ko foofu la koy fekk te sëriñ bi Daaru Karim la ne muy sëñ Mamor te nun mooy sunu sëriñ démb tey doog a ñëw ba nu xamee ndajoor ak càmmoñ dañ koy jaay suñu lépp jënd ko taalibe te lu nu gëm la lu nuy def la lii vingt ans ñi ngi koy def te fas nañ yéene mu sax dàkk waaw fas nañ yéene eh, matul nag matul zéro virgule pour cent ci suñu yéene ndax nu nu nu mel mooma lu nu am mooma waaye kon buñ ko mënta defal dara war nañ ko wan ne ko mbàkke yow kon lii lépp rek loolu lañ ci jublu dañ koy wan ne ko mbàkke yow rek cant ko cant xol goo xam ne suñu jëf mënu koo matale jegewu ko sax suñuy kàddu mënu ko waaye danañ ko wan ne ko ya mbàkke yow loolu lañ ci jublu yéen it ñu ngi leen di sant bu baax ci ndaje gi nu fi daje waaw waaw ku baax eh, taxaa moom dafa nuroog jëmm ji aw dox yi ñoom ñaar sëñ ma Masamba dafa liggéey doom doomi sëñ Tuubaa ba am seen ngërëm mm-hmm. te loolu am na lu ci xam doomi sëñ Massamba yi magam yëpp am na seen ngërëm boole cërub Cheikh Massamba am boole ko tey sëñ Muntaxa it ku ne xam na ne noonu la mel yàlla boole leen jamono te ñoom ñaar it seen diggante lu sori la sëñ Muntaxa moo wax bi sëñ Maam moo toogee xalifa ba ànd ak njaboot gi dem di ko siyaare ci jotaay ba dafa wax ne sëñ Maam Mor ba ma ko xamee rek laa ko soppoon ba ma jaxasoo moom it gis naa ci moom lu tax ma gën koo bëgg loolu mu ngi ci internet bi kàddu yi sëñ Muntaxa ba lu mu yéene mu liggéeyal ko Cheikhul Khadim waaye sëriñ ma sàmba yàgg fi te wér kee di sëñ Touba kii di sëñ ma sàmba ñu yàgg jamono lool ñun naa ñun yàgg fi di seeni donga topp ci ñoom rek topp ci ñoom sës ci ñoom rëkk rek du di digal ñuy jëf di sant bu baax na maam Jaara moom itam moom it gis nañ taxawaayam muy muy jàmbaar lool macha mooy sëriñ Masamba daf ko amoon diplomatie religieuse la mooy rafetal al ihsan te loolu sëñ Touba ko defoon ci moom. mbooleem ñi bokkaloon sëñ Touba ñëpp ci cheikh si ñi ci ëpp tudde nañ ko doom te loolu dara warula ko lu jëflante bu rafet ak ñoom ba ci yeneen turuqu sofiye yi amoon naa ak ñoom relation yoo xam ne kër gu ci ne mën nañu laa wax Cheikh Massamba lu mu seqoon ak seen kilifa loolu nag jamono daf koo laaj muy rafetal ndax fii jamono toll léegi ñu bari gëlëm nañu daanaka dañu mel ne ñenn ñi dañuy concurrence ci euh, ñaawal te inna yu yuhibbul muhsinin loo xam ne ku koy def yàlla da lay sopp muy rafetal te yàllaa ko wax loolu nañ ko waat ci moom mm-hmm. waaye ci topp nag mooy générosité tabe tabe nag du caagee ne nit ki da ngay bàyyi ba bari la rek doo koo def te jamono laaj na ko nag muy partage solidarité mm-hmm. li ñuy wax social sëñ Massamba moom ràññi na ca ba mbooleem ñi bind ci moom bokk na ci li ñuy bind ci moom te loolu jamono gën na ko soxlaat fii ñu toll mm-hmm. loolu daal yaakaar naa buñ ko yóbbaloo di rafetal ci wax ci jëf boole ci di partager di dimbalante am naa yaakaar na yooyu buñ ko suuxataatee lu bari dana defarwaat waaw dañ ciy barkeelu bu baax rek di ko barkeeloo ci sunu kilifa gi di sëñ ma Masamba nga xam ne moom euh, jëfam ci kilifaam ya euh, bu nu amoon ni milliard di ko jox sax mënuñu koo dab waaye dañuy barkeelu ci jëfam yooyu rek waaye nag di ko roy nag ki nga xam ne nag sunu soppee la muy Cheikh Ibrahima te moom dadaa waaw dadaa wax ne ndax xam nga xam nga xam nga Cheikh Ibra daa waxoon ne dabe ndab waaye dabe ndab moom dafa mel ne Cheikh sàmba mu yàgg na koo jàngale bu yàgg nga dégg Cheikh Ibra wax ko nga xam ne kon da gis na mag ñi ñoom ñoo bokkoon fuñ ne kon bu nu bokkee ci Cheikh Massamba Cheikh Massamba bokkoon ci liñ ko miine woon di defar ay ñam di ko jox jaami yàlla yi te loolu bokk ci li ëpp tiyaaba wayut yi moon a taama ala hubbihi jàng nga ko ci alxuraan lu màgg la defar ñamu sell di ko jox jaamu yàlla sëñ Massamba daañu ko woon ci ba ñëpp xam ko ci sunu royukaay ki ñuy roy ci pas-pas suñu diggal suñu kilifa muy Cheikh Ibra waxoon ne dabe ndab moo tax nuy jéem loola rek ndax xam nañ ne li nu war a jëf asaka ji mënuñu ko waaye jàpp nañ buñ ko jaaree ci ndab yi barkeeloo ko ca jëfi sëñ ma Massamba ak kàddu yi Cheikh yaakaar ne sëriñ bi daanu nangul te bu nu nanguloo rek daanu yokk bu baax ñu leen di sant bu baax jërëgeen jëf jërëjëf ma yeggal ci dongo yi nga santal ma leen ndax gis na seen taxawaay gis na seenu bëgg gis na seenu cofeel xam na seen digganteeg sëriñ Sam nee na loolu mi ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax di leen ñaanal ci barkeb Serigne Touba barke ma sàmba foo leen bëgg yegg yàlla na ngeen fa yegg ci darajey sëriñ bi ndax gis na ni bis bi bu jotee fépp fu sëñ saam amuk bëggam ci bool yi seenu bëgg seenu bëgg dana fa taxaw jotaay bi nag moo xat ndax danoo toll ci wàllu tisbaar te sëñ Mamour kenn ku ne xam na ko diggante ko waxtu yàlla wi bu yegg see dootul am sago ci dara wante xam nañ ni saa yu leen mësaan a ñëw yitte ju mat sëkk lay jox jotaay bi wante sëriñ bi moo wax ni santal ma dongo yi ci ànd bi ñu ànd ak sëriñ Sam pas-pas bi ñu am ak bëgg ak seen cofeel ci digganteek sëñ Touba ak Cheikh Ibra seen digganteeg sëñ ma sàmba xam na seen lekk ndax sëñ Sam du ci genn kaddu te tegu ci sëriñ Mamor moom lay doxe moom lay waxe kon sëñ bi nee na mi ngi leen di sant leen gërëm di ñaan ci darajey bis bi ma sàmba bool yii ngeen fi indi bu déwénee yàlla na ngeen indi ko raw ci barki sëñ Touba man nag damay wax ni lii yokku la ko fekk woon démb kon bu bool yi tollee nii da xam ne lii yokku la ku tàmbale woon benn bool ak ak ak keesub sii tey nga indi fukki bool ak juróom-ñeent ak ay keesu kanet li mu addiye yokk nga guddi gëm ko indee ànd ak waay juróomu jigéen ànd ak soxnaam daal di ñëw indi ko muy benn bool ak keesu sii daan ko sëñ bi damaa bëgg nga ñaanal ma lii yokku kon tey bu àndee ay dongo muy fukki bool ak ñeent ak ay kanet ak envelop kon yokku ngeen kon Mbàkke sa taxawaay yal na yàgg ñu ngi ñaan ci dara ji bis bii li nga bëgg yaa ko xam yàlla na sunu borom yëggale yëpp di siyaare bu baax sunu sang bu tedd bi Cheikh Cheikh Mourtala Fall ku xamoon waaye juróom Sérif Abdourahmane kon bu fekkee jotaay bii nga xam ni Cheikh Ibrahima rek lay dund Cheikh Mourtala mii mook sëñ Mourtala mu sëñ Sam benn lanu mu sëñ Mamor benn lanu kon moom bu fekkee jotaay bii damay wax ni liggéey bi bi ko sëñ Mamor nangoo boo yónnee ak cant gi mu ñëw seere lii baayam ba di jarbaatu sëñ Mamor Serif ku ko xamoon xam ni sëñ Touba Cheikh Ibra yemalewu ko dara kon Mbàkke jërëjëf. waajuram wi fi toog tey doon Cheikh Massamba toppee ko ko may sëñ Mor. bëggul lenn ci kanamu sëñ Moustapha ak i magam waaye tey yàlla sama borom dogal na mooy ma Massamba moom miitam itam yoon woowa rek la jaar bokk géeg njuril gi lépp jaay na ko jënde ko taalibe sëñ bi nangul nag ko nag nangul ko ko nag moo waral lii moo tax Mbàkke taalibe yi nun mën nañu sukk mën a raam waaye li lem lemul xel mi waaw ku kennal sëriñ bi rek ñu kennal la moom nag ci liggéeyal sëñ bi ci lay xëy ci lay gont waaye nag maamam am nag pay te dana te dana ko fay noonu fanam wi gudd senes bee ca ndakaaru ak ni ndakaaru rëbe ak ni mu leen wëlbatee jëme leen ci yàlla ak Seex Masamba ma nga fay liggéeyal maamam waaw liggéeyal te liggéey bi maamam nangu na ko maamam nangu ko bu wér moom daal Mbàkke noo ngi ñaan saw fan gudd yàlla may la wér waaye dalalal sam liggéeyal naa Serigne Touba ak Cheikh Massamba saay morom raw na ma nopp du ko dégg bët du ko gis. yëg naa ko dox gi muy dox ci biir réew mi ak bitim réew ngir séeréer bi lépp xam naa ko Serigne bi moom de wallaay wallaay wallaay wallaay. لا إله ñoo ngi koy ñaanal Cheikh Mamor Mbacke moom seex ma Massamba di ñaan yal na ko fi yàlla bàyyi ba motti mottali naal yi mu naal li ci jiitu mooy jumaa ji mu naal la ma Massamba yal na mat bam naalaat yeneen teggi la ko tànn ko noonu ginnaaw loolu ñuy nuyu Serigne Sam Mbacke Ba mii ñu toogal di kilifa ak jataay bi fekkoog sëñ Baara Amar mii nga xam ne magum taalibe la ku yàgg ak njabootu sëñ Tuubaa ñoo koy siyaar bu baax a baax di siyaar mboolem wëllëre yi fi teew yëpp sunu xalifaa ngi toog sëñ Modou Mbaye sëñ Alpha Mbaye ñoo koy nuyu ak sëñ Thierno Samba mboolem membre daayira bi kàddu yi nag du mën a gudd mooy li ñu leen di seeral daal mooy nan maase wax ni alhamdulillahi rabbil alamina ndax tawféex gi nu am bi yàlla dogalee ñu yóbbu xéewal yi ku ne xam na ni bañ fa demee dañ fa daje daayira isbu tarxiya ak yeneen daayira daje fa ak ay délégation yoo xam ni ay ndombay tànk lañ yor ci wàllu àdduna te wax na ni sëñ bi 9 heures la toog ba 2 heures te ku ne xam na ni magum juróom-ñaar fukki at ak lu topp bu toogee waxtu woowu ak ñeewante dab na sëñ Sam ndax wóor na ko ni bu sëñ bi xamoon ni daa bëgg rek moom mu egsi ci noonu la sëñ bi bëgg. sëñ Sam la mu bëgg sëñ Mamoor dana ko defal waaye nag dafa xam ni kilifaama waajuraama te toogaay bi yàgg na mu ne ko Mbàkke maa la ñaan rek nga ñëw xool mbooloo mi xool xéwal yi ñaanal leen loola it noonu la ko sëñ Mamoor defe ñëw gis xéwal yi gis mbooloo mi ñaanal leen mënoon na caayam waaye dafa dem ba ca biir mu yónni ndaw yónni Pape Thiam ni ko wool ma donge yi ñu dugg ca saal ba nga yëkkati kàddu yi ma la yëkkati ngir sant leen di leen gis naa jëf ji te yëg naa ko. amiin amiin.